bon man maa ngi tudd Issa maay chef de quartier maay délégué de quartier bu Cité Port tu événement bi bon mag na magaay boo xam ne surtout contentement waa Cité la parce que bi ñu desee bi ñu demee keroog gis Macky yu def nañu suñuy julli Cité Port la ñuy jublu bon nag bon mbégte waa Cité la te wax dëgg yàlla dafa mel ni aussi maay chef de quartier Massalikul Jinaa parce que Massalikul Jinaa bon benn tali moo dox suñu diggante moom bon nit ñi nag bari nañu bariwaay boo xam ne loolu yëpp ndax bëgg sëñ Touba loolu yëpp ndax euh, bëgg diine lislaam tu as vu lii daal ndamu lislaam la soo jiisee tabax bu rafet œuvre bi ñu def biir Massaliku Massaliku wax dëgg yàlla boo tabax la boo xam ne rafet na rafet na lool ba nga xam ne àddina bi yëpp comme ni koy waxee président Wade àddina bi yëpp dinañ mën a ñëw di ko di ko di ko seet seet yooyu loolu daal bo non côté dund ak côté dëkkin ñoom ñu ko woon parce que soo gisee xam naa ne berndeel yi bari na mais nit ñi aussi des fois sax dañuy dugg ci kër yi di laaj fu ñu mën a xewloo daal parce que des fois sax nga génn bëgg a sarax taalibe mais ñeneen ñoo koy ñoo koy itewoo bon bon nag berndeel yi bari na mais aussi nit ñi dañu bari lool bari bi nag bon lépp ndax bëgg sëñ Touba ndax bëgg euh, diine l'islam mais est-ce ñoo ngi waaj euh, bàyyi xel ni est-ce que loo xam ne luy woy la chaque euh, septembre. ñu kon bantaka yaakaar ne war nañu mën a waajal waaw xam nga nag lu ëpp lu lu la bett mën la mais xëj na déwén bon y aura une meilleure organisation ba ñu xam bon nuñ koy defee parce que événement bi bon événement mondial la événement religieux la boo xam ne bon comme ni nga ko waxee léegi chaque le 27 dinañ ko mën di def mais bu boobaa dinañ gën taxaw daal gën a organiser wu ba nga xam ne bon flux nit ñi ñu xam nuñ leen di organiser mu am ay pôle d'entrée mais aussi mu am ay pôle de sorti surtout bon peut-être que ñëw bi sax dina facile mais su nit ñi di kii nu mu tuddati su nit ñi di di ñibbi ku nekk ñii dañuy yàkkamti ñibbi ñii am yeneen ité yu ñuy soxla yu ñu war a dox bon nag war nañu def ay pôle de sortie xam nga ay sortie ñi nga xam ne couloir bii ñi nga xam ne dans un sens la ñuy dem couloir bale mu jëm dans un autre sens man maa ngi jógee presque à 200 mètres 300 di si mais presque j'ai fait 30 à cinq minutes pour ñëw fi ma bëgg ñëw parce que j'ai fait des détours et chaque fois bon euh, jàll bi du woon neex daal jàll bi du woon neex bon nag il faut que nit ñi ñuy def ay organisation nit soo ko kiiyee ba noppi suy ñibbi da leen di wax bon couloir bi ñuy war a ñibbi couloir bii lañu war a jaare mu doon dans un sens ñi nga xam ne ah, dañu war a dugg si waat aussi ñu ne leen couloir bii ngeen di dugg si comme ça ñu bañ a dajante parce que dañ doon buuxante rek ku nekk da doon dem xam nga di forcer sa morom kopp doole bon loolu aussi bon du rafetul daal tuyaab ci ñoo xam ne dañuy soog a jàmm ba noppi bon waroon sellal waroon gën a waroon gën a dal <coughs> ah message bu positif rek di wane ne bon ñun ñëpp kontaan nañu bon et surtout damay wax euh, au nom de la cité du port parce que aussi bi ñu demee par exemple ci yu wax dëgg yàlla def ñu recevoir amoon nañ fa une forte délégation man mag laa mais suñu maire yi aussi demoon nañu biñ demee aussi def nañu jël leen seen temps ngeen wax ma lépp loo xam ne mooy seen ité loolu lañu def biñ defee aussi am na ay promesses yu mu ñu def bon promesse yi xam naa ne bon ak euh, ni affaire yi demee on nous a dit que ne problème mu budget la parce que cité port li mu soxla mooy ay canalisation parce que surtout ndox mi ndox mi nga xam ne euh, masaliku dañu def tali yi ah, Cheikh Ahmadou Bamba dañu def tali yi mu sut tali cité yi de ce fait léegi ndox bu ñu am day déversé wu cité muy am ay inondation loolu aussi inondation yooyu entraîné suñu degradation tali yi bon nag tali yi war nañ leen defaraat Macky yu dig nañu bon normalement vendredi bi bële directeur u AGEROUTE waroon na fi ñëw ànd ak moom mais xam naa ité yi parce que bi ñu renvoyé ba le lundi dañ nañu problème mu budget la budget 2009 bi moo jeex que ne di budget 2020 bi la ñuy boole bon nag bon di fàttali rek parce que lii may wax ni du kii du critique mais quand même fàttali la pour wax leen ne ñun soxla nañu et bon yaakaar nañu aussi budget 2020 bi war nañu kii parce que ñun ñoo ñooy voisin direct bu kii Masalikul bon nag Massalikul munul rafet munul taaru ba nga xam ne sur le plan mondial dafa am rang bu nit ñëpp war a ñëw di ko seet si à côté son voisin bon war a vraiment nekk ci situation boo xam ne en partie bon travaux yee ko ko teg bon mu ñu waroon daal jàpp ci ñoom ñëpp parce que Mbacke yu moom yaakaar nañ ko ci lool jaa bi mu jàppale ñu pour ñu defar suñuy tali ak defar suñu ay canalisation def ay pente versante ba nga xam ne si report inondation dootu ko def wa nga xam ne le 27 bi prochain su ñëwee ñun tam dinañ mën a taaru comme Massalikou mën a recevoir gan yi parce que gis nga si report dafa fees del suñu étage yi dafa fees nit ñi ci kaw ci biir kër yi lañ doon julee man sama kër mu ngi nii yéen dugg ngeen fi xam xool ngeen ni mu mel bon nag war nañu bon vraiment jàppale ñu pour améliorer Cité Port Diagne war nañ ñu jàppale pour améliorer cité port yaakaar ko ci Macky yu parce que vraiment xam nañ ne am na ay relation au niveau de l'état sëriñ bi tam dina ko déglu Diagne di di sant ñëpp di gërëm ñëpp quoi asalaamaaleykum wa rahmatullah mm-hmm. ah wasifa bi waaw wasifa bi dinañ dem euh, participer ci xadara bi parce que aussi li neex ci jàkka ji mooy jàkka ji bon niñ ko tuddee jàkk joo xam ne la jàkka yàlla la néegu yàlla la bon nag ñun ñëpp ci profit euh, ñun ñëpp ci bénéficier tu as si report toujours en premier tu as ñun ñëpp ci bénéficier ji ñaan rek bon wasifa bi bon mu doon wasifa bu bu neex bu harmonieux boo xam ne yàlla dina ko gërëm yonent bi gërëm ko Cheikh Ahmed Tidiane gërëm ko Cheikh Ahmadou Bamba gërëm ko